a uh, pël bu rafet di Idrissa Sow nangu na ne moo rey commandant Tamsir Sané l'observateur nañu moom Idrissa saw ñu gën koo xam ci pël bu rafet di waaju ne moo jiite woon kili gu wëyu gi demoon songi bureau de post bu Koumpentoum ba commandant Tamsir Sané faatu ci wax na ana nan la faatee sandarma bi pexey dem songi post ba ci moom pël bu rafet ci la jóge moo planifié opération bi ba ñu yeggee attaqué post bi ba nu sandarma yi yegg see ñuy fetalante ak ñoom ba ni ñu faatee commandant Tamsir Sané lépp mi ngi ci page 7 bu l'observateur les économies ñi ñuy tuumal ci faatuk Mazor Sané toll nañu ci fukki nit ak ñett ñoom ñëpp ña nga ca kaso bu Tamba démb la leen juge bi mandat dépôt juróom-ñaar jéem ak càcc jërë ngeen jëf pël bu rafet di Idrissa Sow nangu na ne moo rey commandant Tamsir Sané l'observateur nañu moom Idrissa saw ñu gën koo xam ci pël bu rafet di waaju ne moo jiite woon kili gu wëyu gi demoon songi bureau de poste bu Koumpentoum ba commandant Tamsir Sané faatu ci wax na ana nan la faatee sandarma bi pexey dem songi poste ba ci moom pël bu rafet ci la jóge moo planifié opération bi ba ñu yeggee attaqué post bi ba na sandarma yi yëg see ñuy ak ñoom ba ni ñu faatee commandant Tamsir Sané lépp mi ngi ci page 7 bu l'observateur les Major Sané toll nañu ci fukki bi mandat dépôt a am na ñaari fitali mëqadoom yu ñu nangoo ci ñoom benn pistolet automatique ay bali fital ñaari jaas benn paaka ak juróom-ñaari moto ñoom ñi ñu ne ñoo faat commandant Tamsir Sané ñoog seen i complice yëpp Les Échos bind na ci xëtam mu njëkk ne kaso lañu fanaan biig ko dëggalal boo da nga fa gis fukki sàmba booy ak ñett yi ñu jàpp ci mbir mi ñoo nga ca rangaloo wane ginnaaw ñu ceene leen ngànnaay yi ñu nangoo ci ñoom it ñoo ngi tege ci xët mu njëkk L'As journal bi teg ci bind ne fukki faatu commandant Sané ñoo nga ca kaso ba Vox Populi nañu Idrissa Sow di pël bu rafet nangu na ne moo faat commandant Tamsir Sané procureur bu Tambacounda inculpé na ko ba mandat dépôt ko moo ko kiligam téeméeri million ci suñuy koppar moom la justice ne na ko Abdoul Mbaye jox jabaram jaw woon di Aminata Diack xibaar baa ngi ci xët mu njëkk la Tribune muy dogal bu tukkee ci coowal faux usage de faux ak escroquerie gi ko Aminata Diack doon toppee source waa nañu neexi tubaab Abdoul Mbaye nar naa ñàkk xaalis bu bari ci procès en appel boobee dox diggam ak jabaram jawoon enquête dina kay nañu awagul yoonu di yëkkati téeméeri million di ko fayee a Diack Abdoul Mbaye cassation la bëgg a yóbbu mbir ngir mu kase dogalu cour d'appelub Ndakaaru bi ministre de la justice garde des sceaux maître Malick Sall moom la l'observateur xëy di waxtaane ubbil yéenekaay bi ana nan lañu ko gisee jéegoom yu njëkk ca ministère de la justice ci la journal bi xëy di enquête Alassane Seck bu Ligue sénégalaise des droits de l'homme ne waa l'observateur maître Malick Sall ñi ko def ministre de la justice dañoo juum du casting bu baax Babacar Ba njiital forum du justiciable ne ñu ci yéenekaay bi maître Malick Sall ba ñu ko defee ministre de la justice ak léegi wax ju wax aw tojanga la bu waxee rek wax aw rajo génn aw doxalinam ci ministère de la justice attitude am ak ouverture d'esprit am lu leen neex la li neexut a dégg mi ci suur suwa nguurug Sénégal gi nekk ci pexe ngir wàññi dépense état bi loolee naruta jur jàmm ci ADS mu di agence des aéroports du Sénégal ci tas ko baa ñu sàkkal ko pexe ca la ñu jëm suur suwa bind ne ADS mi ngi ci liste noire bi Birahim Seck bu Forum Civil ne ci Vox Populi Macky Sall mu taxaw naan day wàññi train de vie bu état bu Sénégal loolee du gulet ñu koy dégg wax ji daa dem sax ba booy noppi nit ñi waa Forum Civil ne li ñuy xaar ci Macky Sall ministre bi woon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril atum 2019 ñu jëmmal ko waaye du toog di seetlu lu ñëpp gis bu yàgg li ñuy waxtaane bu yàgg ba léegi mu di dialogue politique bi ci réew mi Le Quotidien ne nañu waxtaan wa dafa tagga témbe li ko boleke ñaar la benn moo di audit gi ku jëg politique yi di sàkku ñu audité ko fichier électoral bi ñaareel ba di ñu évaluer processus électoral bi yéene bi nañu opposition bi li ñu bëgg moo di liggéey yooyee ñu dénk ko ay expert indépendant di kàngam yu amul genn péete ci Sud Quotidien Benoît Sambou di ko fa majoritaire ci commission cellulaire ci wàllu dialogue politique bi nañu mbirum audit fichier électoral bi ak évaluation processus électoral bi fala la gaañi giitoo ba tax lépp tàkk nañu tàkk ci la Sénégal xooli fan la fa professeur Khadiatou Talla fal wax professeur Fall nee na